te it weer bu dee nit taxaw la tàllal la loxo ah dama ne askan bi jox leen ma seen noppa ndaxte Kairó Show Properties ñoom ñoo ñëw nag génne fi loolu ba mu set wecc ne néegi luwaas kenn du ko fayati ndaxte ñu ngi leen amal bërëbu dëkkeekaay yu yàñña dëkkeekaay yi nga xamante ne nii ñu ngi ko jaayee foofu sa Lamin Kerewan bu dëkkeekaay yi nag li nga xam ne moom mooy ndox ak courant mu fa lépp loo soxla sa wàllu dëkkeekaay su Investment Limited mu ngi la ko fa amal Keresu Investment Limited nag seen bu dëkkeekaay yi ñu ngi ko jaayee si cash price muy jar si ñaar téeméeri junney dalasi ñaar téeméer ak juróom fukki junney si ñaar téeméer ak juróom fukki junne dalasi mortgage mortgage nag foo ko dégg mooy ah, fay ndànk-ndànk ba fay bi jeex nga fay ko si diiri juróom benni weer ah dama ne Kayrasu Properties njaaxare jeex na coono jeex na tëddal nelaw si sa kër boo nelawee sa gannaaw bandang Kayrasu Properties daw leen dem seeti seen kër yi foofu noonu Salameng Kerewan boppi xibaar yi euh, kuréel gii di Janney commission ñoom nag euh, ñu joxe woon seen report euh, si ki nga xam ne moom mooy président bi gannaaw bu ñu defee seen i ay gestu waaye ba tey si li nga xam ne moom mooy seen i xalaat si ñi nga xam ne ñoom ñoo doon def ak kooku noonu nekkoon fi njiiti réew bi Yaya Jammeh gannaaw bu ñu seen gestu ñu si bëri nag aaye nañ leen tere nañ leen pour liggéey si li nga xam ne moom mooy si nguur gi. ba tey it euh, fës si boppi xibaar yi li ki démba euh, kii di Adama Baro woon na foofu noonu si pencum réew mi euh, pour wax ak li nga xam ne ni moom mooy réew mi. GIZ ñoom ñoo ñëw ak seen programme fas yéene lëkkaloog yeneen i institution ba nga xamante ne nii dinañ mun a yaatal seen i mbagg ba jàppale ndawi réew mi fii si biir réew mi mbokk yi li moo fees si boppi xibaar yi bu ngeen taaxelloo ñu faral fànce ko. ak ñeneen euh, waaye ba tey it si euh, report bi ab coow laa dina si ne pour si biir dëkk bi euh, parce que nit ñi bëri ñu ngi seen xalaat ak seen i kàddu teg ko si li nga xam ne ni moom mooy report bi parce que ñi bëri ñu ngi wax ne ni report bi boo ko xoolee jaarul yoon parce que am na ñoo xam ne nii ñoom daal bokk nañ si waaye kenn waxul si seen tur waaye ba tey it si biir xibaar yi su ko defee rek ñu ngi toog ak ki nga xam ne nii moom moo bokk na si. teewal kon ñu ngi leen a sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla lépp wala leen jàppal mu gën a jëm kanam. Euh, est ce que gis nga euh, kuréel gi di Janet commission euh, seen report bi. waaw teg naa ci loxo am na li ma ci gestu li nga xam ne loolu lañ gaaral mu doon li nga xam ne daal yéeme na. comme niñ ko waxee rek mbiri du ay mbiri politique waaye mbiri réew mi la mbiri askan bi la mhm. di gëm ne lépp luy tax ñëpp nekk benn ñu mun a tabax réew bu bees saxal jàmm mun am yokkute. loolu war naa soxal ñëpp teg naa ci bóot euh, am na mbir yi nga xam ne daal euh, jar na pour nit ki waxtaan ci xuus si ba ci biir. Ah, soo yow naka nga gisee li nga xam ne lii moom mooy euh, li nga teg loxo noonu. di tàmbale rek biñ ko sosee ñi nga xam ne ñoo fa nekk kon man li ma góob doon juddu réew mooy lépp loo xam ne si dégg la sosu rek boo ko xuusee di nga am li dégg waaye nit ki bul gis sa bopp gis sa place ba wala xàcceeg sa doole wala nga mere nit ki wala bañ ko fexe ne di nga seet noo ko suuxalee mooy ñi nga xam ne ñoo sos mbir mi ñiñ fa teg kenn waxut ne seen xam-xam màccu ci waaye dama gëm ne ki fi neewoon moom nga bugg seet ay mbiram pour aate ko war ngaa mun a indi ay nit ñi nga xam ne jëflante wu ñoo moom ci anam bi nga xam ne mere nañ ko wala am nañ ay jaar-jaar yi nga xam ne na suuf euh, li li waral ma wax loolu ku mel ni am nga lead council bi di Amie Bensouda Darame ñu bari ci askan bi gëm ne waruñ ci wan bokk. Ah, waaw dinañ ñëw si loolu waaye bala ñoo àgg foofu noonu rek ah, ñu bëri ñu ngi daal di laajte est-ce que ah, li nga xam ne nii moom mooy jaaneer commission bi méngoo naag li nga xam ne mooy sartay réew mi parce que ñu ngi ne soo xoolee si ninety ninety seen constitution bi jaaneer commission bi soo xoolee si portion boobu noonu dafa violate li nga xam ne nii moom mooy sartay réew ko xoolee ñu gën koo xamee si li nga xam ne mooy seal transition transition commission bi. ko xoolee lu la euh, euh, euh, boo ko xoolee daal ñoom si lu gars bi méngoowul loolu. waaw ah, loolu moom dëgg la man téere réew lu ñu war a fonk la lépp lu fa nekk mu baax mu bon mooy àtte ñëpp. Mm-hmm. Ah, surtout ñoom biñ toogee lépp luñ gis ne doon ton lu baax waroon nañoo tàmbali ci loolu def ay coppite mm-hmm. waaye nit ki mënuloo jël li la neex ci téere li la neex nga bàyyi ko fa loolu du yoon ah, li ñoo wax lu mel ni di indemnity clause loolu mbir la loo xam ne. dafa jox kaaraange ci ñoom ñi fa nekkoon te tey dinaa wax leen askan bi euh, àddina ba mu daj amul fenn fi nga xam ne military junta mus na faa am ñu àtte leen ci any court tribunal wala any commission loolu Gambia ñoo ko njëkk a tàmbale kon joxut réew mi euh, jëmma wala anam bi nga xam ne surtout gannaaw bi nga xam ne suñu téere réew daf ko daaxa kon loolu yaaxa ay charta la man li ma gis ne li ko waral la rek mooy bugg a feyu ci nit wala mere ko wala am lépp li nga xam ne loolu na ko bugg a teg waaye loolu moom kenn mënu cee am sikki saaka gis nañ ko ba Yankuba Touré li mu am ak TRRC bi li ñu ko caajoon you noo bu ñu demee ci koot bi ñi nga xam ne yor attekat bi jël nañ loolu sànni ko ngir gis nañ ne suñu sukkandiku lu wér la gannaaw loolu ñu is yeneen daan teg ko ci ay daf tuumal ko ne dafa rey ak yu ne mbir waaye kon téere réew mi li fa nekk loolu moom lu wér la dëgër na ñoom ñoo waroon a fexe wécci ko comme que àndut ak ñoom kon yaa xam ne ak charta Ah, su ma jàngatee sa wax ah, dafa mel ni ah, dangaa wax ne nii comme laaj nguur gi den teg commission bi ni pour fayeeku ki nga xam ne nii moom mooy moo fi nekkoon njiitu réew. loolu mooy suma gis-gis moo tax ma ne am na ñu fa bokk sax ci njëlbeen waruñ leen ci mën a boole. Euh, si njëlbeen waruñu leen si woon a boole ñu bëri nekk di ko waxtaane si biti euh, ne li nga xam ne nii moom mooy kuréel googu di Diané commission euh, ñu bëri ñu fa waruñ fa woon a nekk parce que soo ko xoolee si ki nga xam ne moo ko jiite woon di Amie Bensouda moom si boppam waroon naa bokk si ñi nga xam ne nii toog neen face commission bi wax li nga xam ne nii loolu leen loolu moo xewoon si gannaaw waaye ba tey it moom ñëwut tey turam feeñoon na fa naka waaw loolu mu nekk loo xam ne dafa lu ngir kenn ku bokkoon ci ñoom ki ñuy wax Mr Koran moom demel na ba binda sa feeñal li ne mel wane moom ay jaar jaaraam ci li nga xam ne moo doxoon ak nguur bi fi nekkoon ak ki ko jiite woon mhm. waaye boo xoolee ñoom fexe nañ de Koran boobu ñu daaxa ko fa génne ko kon loolu rek wane na ne am na lu ñuul ci soow mi mhm. moo tax ma ne mbir lu nekk rek suñ ko jaaralee ci yoon ah, léppaluñ luñ see séntu dinañ ko mun a am te askan bi dinañ gis ne jaar na ci yoon waaye boo tàmbalee di doxal dara ca teguwul ci yoon lum yàgga yàgga rek dégg moo dee mujjee te nit ñi bu yàggee suñ gisee dégg dinañ ko xee kon nguur bi nañ bàyyi seen xel ci loolu bu baax ñu gis ne réew mi pour ñëpp la suñ la jiitalee jox la place liggéey ak def lu war moo tax waaye wanewut ne da nga war a fisal doole wala wane ne maa fi man wala dinaa def lu man ne te génn ci lii dafa war a nekk jàng bu mag ci ñoom Euh, kuréel gii di Diané commission euh, ñoom it nag euh, génnee neen seen xalaat jox ko si ki nga xam ne ni moom mooy jiitu réew mi ne ñii nga xam ne ñoom ñoo àndandoo nag ki fi nekkoon jiitu réew di Yaya Jammeh ne daan yi leen leen war a daan bokk na si ñoo xam ne ni leen aaye ne duñ liggéey ak li nga xam ne ni moom mooy nguur bokk na si tamit teg seen loxo si yenn bagages yi nga xamante ne ni jiitu réew mi moo fi nekkoon ne moom moom ba ñi nga xam ne ñoom ñooy nguur gi fi toll nii ñu ngi Euh, am fas yéene ne euh, dinañ euh, jëlaat baat lu toll si one billion dalasi naka nga gisee li nga xam ne ni moom mooy jaane commission bi lii la jël ne nguur gi loolu la war a teg si ndollu ñi nga xam ne ni ñoom ñoo àndaloon nag ki fi nekkoon président jiite woon seen parti bi di Yaya Jammeh. jërëjëf Aïda loolu doon lu am solo ki fi nekkoon yàgga fi lool. Euh, ci ñaar fukki at ñaar li ko fi génnee nangu toola lu ñoo wax joint declaration mhm. li nga xam ne AU ECOWAS ak UN euh, ñoo ci am nangu too ak moom këyit yooyu lu leer la te bokk na ci loolu mooy lu moom moomam boppam alelam lu ñu war a sàmmala te duñ ko laal waaye lépp lu nguur mboom nag nguur am na ci yoon pour jël ko waaye ci ay firnde yu leer ñoom fuñ tàmbalee suñ waxee commission of inquiry mooy gestu moo leen war suñ gestoo bi mun a lijjante ay jaar-jaar ñoom si la ñu war jël seen report boobu def seen recommendation waaye gis nañ ne ci gëstu boobu dañ jaay ay bagages yu bari te am na lu bari loo xam ne ay alelam la moom fu mu taxaw dina mun a génne finde yu leer ne moo ko moom lu mel ni ay jur ay nag ñoom lay buñ ci jox mooy ne dafa bari ñoom munuñ koo sàmm waaye lu mel ni nguur nga am lu toll ci ministry of agriculture bu mën ta saytu loolu man li maa wax mooy nguur boobu kon feel na parce que loo xam ne nit ki moom ay néew la ko bàyyi woon ñu ñu koo sàmm te nekku fi ci gannaaw ñu ko sàmmal indi commission teewal réew teewal nguur nga ne loolu munuloo ko sàmm ak lan wala ci leer ne li ci nekk lépp alelam la te am na loo xam ne ay wanteer la am na ñu nekk ci nguur bi dañ ci bànneexu ñu jox leen ko ci lu yomba man teg naa ci suma boot euh, tase seeg ñaari pick-up fekk ñu ngi demoon advance team port ci def bi bu ñoo ñib si benn bi pick-up bi jaaree la ñu ngi eb ay nag jógee ay côté Kanilaay beneen bi amul number plate loolu yëpp buñ ko gisee ñu xam ne parce que dañ ko doon def sax si secret waaye lu mel nii fi nguur warut a am nopp looy xaar ba guddi di eb ay nag di ko yóbbu war nga koo def fu ko askan bi yëpp di teewee moo tax tey waroon nañoo leeral askan bi ñaata nag lañ jaay fuñ ko jaay ak ñaata lii yëpp nekkul ci report bi ay otoom jaay nañ ko ñaata oto la kuñ ko jaay ak yeneen de tracteur yi nga xam ne moom lañ nangu jaay ko ak ay yeneen i bagage ba moom wax na ne yaaxal nañ ko jumtuwaay yu bari kanilaay ñi mu fa bàyyi pour ñu sàmm ko mu ne su waree lim li nga xam ne loolu lañ ko yaaxal dina ko jël lu dem ci one week pour mu mun a bindal li nga xam ne moo fa yaaxu te mu ne li ko ci naxari mooy dañ ko jël di ko jaay biti réew léegi-léegi ay nit di ko jël di ko jaay def seen poos mu ne su doon réew mi moo ko jël jëfandikoo mu xam ne ci réewam la des te ay bagage su seer la nga jël ko di ko wanteer kon commission bi nu mu doxalee ah, wax dëgg ak ne yàlla dafa ruslu Ah, suñu waxee ne ñi fa nekk seen xam-xam dafa màcca waroon nañoo seet ci mbir léegi li ñoo laaj ndax lu waa may na leen pour ñu mun a jaay la ci gannaawam wax naa mbiri nangu too bi waaye loolu di chief justice si liñ gis ne moom moo leen mën a dooleel mu isi ay lay waaye soo demee ci luwaa comme lu angale di wax rek there is man and his property kon soo jëlee alali jàmbur war ngaa mun a isi firnde yi leer luy wane ne du kosam so ñoom fu mu nekk tollu nañ ci eh, si jamono boobu moom saa yu ñëwee ba fisal moom am ci lu dinañ ko ko delloo kon loolu mun naa jur tolof tolof moo xam nekk na président toogaat pour fi liggéey na fi liggéeyu nit ki li moomal boppam moo ko moomal boppam mënuloo ko force génne ko ci moom kon loolu tam daanu teel a woon ci ñoom ñoom dañ buroon a boole loolu seen recommandation ci mooy lu ñoo ñaax nguur bi pour ñu def parce que président bi tam am na doole jël nit liggéey daaxala waaye yaa ngi wax ci wàllu baan amul doole boobu pour baan nekk ngir réew bi da nga ko jiite moomuloo te doo fi toobe faw da nga fay jógee soo waxee ne nit ki daan ko fukki at ndax yow di nga fi def fukki at soo waxee ne baan nga ko ci diiri dundam ndax dina la fa fekka ñoom seen doole dafa am fi mu em mooy exécutif bi comme que commission bi gëstu na jox na leen ñoom ñu génnee government wide paper mooy ñoom dañ tàndanaal ne lii lañ bugg a doxal waaye ci doxalin boobu tam dañ ci gis kuma bu am ndey ak kuma bu amul ndey ngir dañ la isil ay tur am na ñoo xam ne yow da nga am soxla ci ñoom nga bàyyi leen fa te ñooñu ñoo gën a feeñ. si dem jël koppar. dinañ ñëw si boobu noonu. ñooñu ñoo gën a feeñ uh, si jël koppar. Uh, waaye dafa mel ni sa wax su ma ko jàngatee ñoom nag uh, nguur gi fi nekk nii den den nekk di yëngatu si wàllu njur njaay si li nga xam ne ni ku fi nekkoon bagage yooyu noonu moom moo ko wala jur yooyu moom moo ko moom. tey si sa biir wax wax nga ne ne bu ñëwee année la bu waxee ne lii laa moom dinañ ko ko delloo si nii mbaa si naa fogaloo kon te ñëwaatam dina yee fitna fii si biir réew mi. ñëwaatam mun tayee fitna li ma wax rek mbir su jaaree yoon moom kenn du si seetu fitna nangutoo moo am loolu moo ko fi génnee ah, te li ma bëgg a leeral mooy juddu réew mi la am benn luwaa wala sarta bu wax ne du dellu siwaat fii ah, yow mi ko wax ne waruloo fee ñëwaat man wax naa ko ne njiiti réew mi ci boppam his excellence président Adama Barrow moom wax na ko ne mm, njiiti réew bi fi nekkoon du ñëwaat fii man tontu naa ko ci ay kàddu ma ne su dee ay ñàkk a ñëwaat kon moom tam dina takk bagaasam dem ngir droit bi mu am toog fii moom tam juddu réew mi la raay boobu la am pour morphée mun a nekka su dee nit ki dafa def lu ñaaw gisi ko nga àtte ko ci yoon su dee da ko war a tëj nga tëj ko luwaa luwaa la man loolu mooy suma gom-gom ngir réew mi laa gis damay faral doon ne képp ku yaaxa luwaa képp ku xam ne oroon na ak sarta nañ ko teg ci yoon ma ne même APRC tey ki nekk ci bopp bi di fa di na right honorable Fabakary Tombong Jatta ma ne su dee yaax na sarta nañ ko jël yóbbu ko ci yoon téere réew mi kenn fettewu ko kaw te moomul réew mi ëpp kenn doole kon man daal li ma góob mooy képp ku def lu ñaaw war nañ koo teg ci yoon waaye ci ay firnde yu leer du mer tuumal ak di jéem a gasal nekk tax Euh, suñ sukkandekoo si euh, book bi nga xam ne euh, nguur gi génne nañ ko muy white paper bi na ñoom nag ñu ngi fas yéene topp li nga xam ne nii moom mooy recommendation bi nga xam ne kuréel bi moom leen teg si li nga xam ne nii moom mooy seen i table bi ndaxte boo ko xoolee si weeru mars kuréel gi di Jaane commission ñoom nag joxe woon leen seen report tey ki nga xam ne mooy njiiti réew mi di président Adama Barrow moom nag daf si taxaw teemu fas yéene dem ak li nga xam ne nii moom mooy seen recommendation bi waaye soo ko xoolee it euh, si biir kayit boobu noonu am na ñoo xam ne dañ leen si seet bi euh, te it euh, taxawoon neen foofu noonu sa commission bi boo ko xoolee ku si mel ni Mamboure Ndiaye fi mu toll nii moo lëmb réew mi dëkk bi ba nga ko waxantoo lan moo tax bokkul si ñi nga xam ne nii daan nañ leen gannaaw bi nga xam ne nii ñu ngi doon lëkkaloo kii nga xam ne nii moo fi nekkoon njiiti réew yow naka nga gisee lii lu lu ñu mel. waaw si ku jiite la ñoo njëkk a joxe baaraam bu ñu la jiitalee réew mi ñëpp nga war a jiite. parce que ñi la bëgg ak ñi la bañ yëpp yow yaa leen jiite kon na waruloo si xaaj seen ah, te ñoom ñoo ko fi génne ci ay kaddu ne one Gambia one nation one people ne benn dëkka ah, benn xeet benn askan kon lii lu war a fes la waaye soo ñëwee ci ay doxalin ay àtte ngay si xaaj ak seen loolu jaarut yoon daanaka ñi def nañ gestu liñ gestu jox la man li ma gox mooy danga war a jël lépp su dee dangaa isi xaaj ak seen nga sànni ko mu génn parce que ñëpp juddu réew mi la te nit ku nekka yelleefam ak axi doomi dañ ko war a yemale ci ñëpp te surtout moo tax ma ne boo xoolee uh, white paper boobu li nga xam ne ñoom luñ ci seeti ñiñ teg daan ñu bari ci ñoom waxuñ ñaata lañ jël liñ wax rek mooy bokk nañ ci li nga xam ne dañ def ay signature bokka nañ ci ñi nga xam ne dañ bokka pour endorse waaye ñooñu place ñu yoroon jamono boobu loolu mooy woon seen liggéey ku mel ni Momodou Sabally a secrétaire nga nekk signité to account mooy contrôle ci wàllu dugal ak génne xaalis di ko yor foog nga bokka si ñoo xam ne yow da nga nekk signé loolu liggéeyam la koo bañ te duñ ko mën a daal yuy ñëw loo xam ne moom lañu war a soxal ci réew mi war na koo mën a gestu mu d'accord ci parce que nekk secrétaire général moo gën a jege président bi bokka na si ñu ko njëkk a gis di ko mujjee gis saa yu nekk te daf koo xelal di gisoog moom ci lu bari waaye ñoom si seen report bi amul dara luñ feeñal wane ne nangam la génne loolu rek war naa mun a wan ne daan biñ ko daan xëy am leneen loo xam ne moo ci nekk te ñeena ci ñoom bi moo nekk secrétaire général am na ñu bari ñu teg ci yoon ci ñàkk fay naamu yaa ngi dégg ba ñu nekk ci jaane commission bi kayit génnoon na fi ñoom suraata jaañaami leen su dañ yëpp ñu gis leen fa ne dañ amee ay xaalis bu bari ci daw war a fay naamoo te fayuñ ko kon moo tax ma ne ay toppante fekk wante mu ci waaye dañ gis ne ndaw la boo xam ne ndaw ñi am nañ yaakaar ci moom te gis nañ ne euh, liggéey na nguuri APRC te ba tey mu ngi farlu di jàppale ndawi APRC man suma gis-gis loolu bokk na lu tax ñu daan waaye ku mel ni Alaaji Cissé nekk chief of protocol te ba tey mu fa te moom report bi ñëw na fesal ne lu bari ci ay koppar mooy dem di ko jël di ko génne kon man tey suñu waree teg daan ma gis ne moom lañ war a daan ko sabali parce que sabali wane wuñ ñaata la génne ñaareel nga dem ci ku ni Amadou Samba ne jëflante ak président bi fi nekkoon jaarul yoon ma ne du moom kenn ñu bari ñoom taf ak CSC yëpp ay compagnie la yoo xam ne ñu ngi doon nguur bi fi nekkoon ak président bi tappale da nga ko sàcc wala leneen déedéet te trust bank soo ko xoolee bokk na nekk na banque bi nga xam ne juddu réew mi ñoo ko dooleel moom ko kon nguur bi dañ ci waroon a jàppa waaye di isi ay indictment pour lu yaxa seen der di leen tëj man dama gëm ne loolu jaarul yoon te lu nekk dañ ko war a isi si ay firnde yu leer ne banque jëflante mooy mbiri koppar te moom fi moo am yokkute loolu la moo ut toon surtout ku jiite réew du ñëw ak ay koppar ngaa ko laaj fan fan la jógee fu mu war a jaar di ko jéem a kis-kis man tey su sàccoon benn milliard yóbbu ko ci ban bi ñoom lu ñu am mooy may bi contrôle ñu dencal ma waaye fi ma ko jëlee ndax dañ ko war a lijjante seen yoon nekku ci kon dama gis ne lu bari daal ñoom am na liñ ci toppaat ci jamono bu ñoo xeex pour falu ñu leen jàppale woon ak def si seen koppar ak ñi nga xam ne fàllewuñ leen tey xaaj ak seen bi moo ci nekk nga xool ki fi jiite woon nekk vice président ñaata li mu def ci réew mi mu doon jigéen dooleel jigéen liggéey fi lu bari ñu ne bokk na moom tam ci nga xam ne ay signature moo fa nekk ak ay mbir yu àpp waxuñ ne jël na koppar man dama gis ne kooku ak lu mu liggéey ñu war koo mun a na jox cër ne at least liggéeyal na dëkkaam li ma laaj mooy démocratie bu ñoo ootee ne mbir dafa war a jub dafa war a leer xanaa nit ki li baax li def lépp dañu war a gas suul ko njuumteem rek la ñoo jël sampa ko jël arrière ay ay ay yar caw ko kon ban façon àddina la ñu dund ak yan xol lañ yor nit ki doomi aadama matut mun naa def ñaaw te waaye am na lu ñu liggéey ci lu baax moo raw njuumte yu ndaw yi nga xam ne moom lañ am te ba tey firnde yi leeragu kon su ko buggee toppa rek du jeex waaye xaajeeg seen bi kumba bu am ndey kumba bu amul ndey yóbbu réew kanam soo jiitee da nga war a jiite ñëpp te soo buggee tabax réew da ngaa jël ñëpp boole leen waaye boo essayé xaajeeg seen rek tolof tolof dafa bari Euh, jamono ji nekk nii nguur gi ñu ngi am yaakaar ne dinañ euh, jëlaat li nga xam ne mooy koppar euh, lu toll si benn billion yi dalasi est-ce que foog nga ne lii dinañ ko mën a jëlaat. man awma si yaakaar ne dinañ ko mën a jën ñoom lu bari su luñ sukkandeku mooy jaay ay bagages. te jaay bagage da ngay xayma surtout nit ki su xamee ne da nga soxla xaalis ah, ñaareel lu ñuy wax oxyde du la ci fay li nga xam ne lu ko jar parce que yow jaay foo jaar jaay ko denca ko arrangé wu la mun naa yàqu ñoom dañ xayma rek ne loolu lañ see séntu waaye ndax li ñu li ñoo jaay yëpp war koo jaay lii mooy laajte bi parce que am na loo xam ne nit ki moo ko moom moomal boppa te jaay ko dina tax nguur bi tam dinañ la toppa ngir soo demee ci néegi attekaay kenn moomu ko ñoom lu ñoo gestu mooy ay finde yu leer waaye ñoom seen tuuma yu bari seen firnde yi dafa des a leer moo tax ñun tuumal nii yëpp buñ ko xeexee ci néegi àttekaay dinañ am dara parce que soo waxee ne nit ki dem na central bank piece of paper lañ binda ñu sign ko mu dem mu génne fa xaalis léegi piece of paper yu doon binda di ko sign mu anam foog nga wane firnde yu leer luy wane ne diw boobu moo ko def te ñaareel soo waxee ne xaalis génn na ne ñoom luñ góom si seen gestu mooy ki fi jiite woon moo joxe ndigal lan nga am lu óor ne moo joxe ndigal ak lan moo tax ñu joxe ndigal dee la léegi li génn lan moo ko tax a génna pour boppam la wala ci askan bi wala ci réew mi la ko def xam nga li yëpp mun nañ ko lijjanti moom nag li ñu wax rek boroom dëj bi mun naa jaay dëj mun naa jooy dëjam suñu waxee ne misaal génne na benn milliard mu ñëw ne benn milliard boobu tey Jammeh Foundation laa ko dugaloon si nangam nangam bagage yi laa jënd ak kayit yaa ngi ne ak lépp ngi tege pour askan bi la kon su boobaa daan ak duma yuñ ko bugg a teg loolu dinañ ko seetaat pour sotti ko moo tax man ma gëm ne njub du mun a am lu dul ku ñoo tuumal di ko joxoñ baaraam war nañ ko mun a may ñu won ko ne lii lañ la jig ñu déglu ko moom tam bu wax lu bari mu mun a leeral boppam su waxee maa yónnee woon diw génnee nangam lu tax lu ko waral foo ko dugal mu wax su waxee yónniwu ma diw ñu xam ne diw tam lu mu wax tegu ko ci yoon diw moo ko indi waaye nit nekku fi lépp luñ ko waxal rek ñu bëgg ñëpp gëm ko ne waaw loolu la man mosuma gis façon atte boobu ci réew mi fii laa a gisee Euh, ñu bëri fi toll nii lëmbee na réew mi ñu ngi wax ne ne euh, ñi nga xam ne ñi ñoom ñooy gi euh, buñ jëlee koppar gi duñ ko tasaare maanaam duñ ko wax ba nga ñi xam ba nga xam ne nii doomi Gambien si dinañ si mun a jëriñu yow lan nga am pour wax si loolu. ah parce que lii desee leer dafa bari maanaam lu anglais di wax accountability and transparency mooy nit ki ñu toppa ko ba mun koo teg ci yoon mu jóg ak mbir di leer. Euh, li desee leer dafa bari tey li fi dugg ci koppar euh, mu jóge ci réewu tugal dafa bari waaye ci lan nag lan lañ ko des dépasse dafa desee leer ay kaddu lañ ñoo wax rek waaye lu bari feeñu kon soo waxee njub mbir dafa war dee leer waruta am nubu nubu te surtout ñoom mi nekk ci nguur bi euh, ku mel ni ku yor kaddu nguur gi di Ibrahima Sankare ci ay waxam yu bari su waxee nga gis ne mer moo nekk ci xolam man dama gëm ne loolu yóbbul réew kanam tubaab bi loo ko bañ bañ nga nangul ko Euh, parce que mu mënuloo toog ne euh, ki fi tegul deful dara ci réew mi yow gisuloo fi benn développement loolu waxi mer la ak li nga denc si sa xol parce que même ñu judduwul ci réew mi ñëw nekk fi gan am na lu bari ñu fi gis ràññee ko ba mun koo seede doomi aadama mënut a matal waaye dañ juddu ci réew mi te mosuñoo gàddaay géej fi ay at lépp suñ kanam la xewee kon bu waxee loolu ñu dinañ ko daaxaat ci wàllu jàng ak bunta yu bari soo gis nañ démb a tey nu mel ak lu isile ceeku yooyu kon génna ne kii defu fi dara di compter ay lim loolu ay waxi mer la te li ma faral di wax dañ di wax askan bi dégg ngir naxaate amul njëriñ ëllëg dañoo xam luy xew parce que bari na lu bari ci ay waxtaana man dama koy toppal li moo gaaral du ci isi firnde leer te du ko teg fenn bu ñuy wax mbir yi diplomatique passeport yi moom wax na mu ne ñoom seen nguur dañ doonoo li nga xam ne mooy scandale loolu kenn du ko wax li mu wane mooy yow mënuloo parce que li nga doonu xam nga ne scandale baaxul yow loolu yaa ko waroon a xeex bu dox waaye su dee nga ne da ko doonoo nga jël ko ba tey muy dox kon dëgg-dëgg yow mënuloo yóbbu réew mi ñëw na fii mu wax euh, bu ñoo wax ci diplomatique passeport yi mu ne nguuri yaa jàmme lu toll si ñeneen ci junni 9000 euh, Chinese citizens yoo xam ne dañ leen jot diplomatique passeport te mosuñoo dégg seen tànk fii xibaar boobu fu ñu jógee mu ne Le Monde benn taskati xibaar nekk France ñoom ñoo génnee loolu ñun luñ koo wax mooy xanaa loolu nekkul si système bi kon nañ ko dem génnee si système bi parce que su dee China lañ ko defaree kon loolu muur bi yoonam nekku ci waaye su dee ci réew mi fii lañ ko defaree jox leen ko kon dina nekk si système bi na ko dem génnee ñu gis ne li ma wax dëgg la dinañ ko nangu man bokk naa waxtaan ci ki nga xam ne mosoon naa nekk ah, ah, foreign affairs ah, ku ñoo wax di honorable Sidi Sané mu ne moom liggéey na fa juróomi at ñetti diplomatique passeport la mu sa joxe si juróom si juróomi weer five months ñetti diplomatique passeport loolu la joxe benn ci ñoom imam ratib la ko joxoon Banjul beneen jabaram fekk jabaram daf doon tukki mu dem Dakar juróomi weer nga joxe ñetti diplomatique passeport te mu ne même doomam yi bu ñu nekkoon Dakar sax amuñu woon diplomatique passeport waaye tey gis nañ ne ci at lu toll ci junne ak lu tegu ñoom loolu lañ joxe. kon loolu li ma wane rek mooy ñàkk jubadi mu ngi am soo mbir yi da koo nangu ne lii lu am la nga fexe dog ko mu génn waaye soo ko jéem gas di suul gas di suul loolu mujj fenn kon nañ di wax askan bi dëgga surtout suñ la joxe palaas waaye li waral li ne mel mooy ni ñoo falee palaas. tey ku mel ni Ibrahima Sankare ñëpp xam nañ ne Gambia Echo moom mooy di proprietor moo ko doon doxal mu nekk online newspaper am na lu bari lu mu def ci jamono struggle bi balaa ñoom ñu sosu soo ñeneen ñi seen liggéey moo tax ñu leen di oo di leen jox place kon xaajeg seen am na dama ko ni réew ñëpp dañ ci am yelleef ak axaar ki nekk ci réew mi ki nekk bi ci réew xoolal ko am ne xam-xam ma xam-xamam màcca na te mun na nga jël ko dénk ko palaas ma liggéeyal réew ñenn ci ñoom sa dañ fi def njuñ njaaj ba daw génn dëkk bi léegi ñooñu nga jox leen palaas ñëw toog fii ak ay mer di wax ay kàddu yoo xam ne amul fenn fi ñu ko teg di ut ay nit ñu ñoo gasal pax di suul man dama gëm ne loolu jëmale réew kan ah, ji nga amee ah, kàddu parti bi nii di APRC ah, ba tey it rek yàgg nañu dégg lu bëri ne ki nga xam ne moo nekkoon di Yaya Jammeh dina ñëw dañuy gis sax ay nit muy lëmbee réew ñu ne Yaya Jammeh next week la moo ñëw wala next month la moo ñëw yow nga amee seen kàddu jamono ji lan nga nu mun a wax si loolu ak jërëjëf euh, loolu doon lu am solo ñoom moom waxagu ci dara waaye ñun suñ pas-pas la suñ gom-gom la ne euh, gisuñ lu ko fee tere ñëw lu dul moom mu wax ne bëggut a ñëwaat fii euh, te ñëpp xam nañ ñu mel ci réew mi lu tax ma wàlli ne mel juddu réew mi la kenn mënu ko werante mu def fi lu bari lu baax donte am na ay njuumte ay daanu daanu doomi aadama kenn bëri géej na ñeneen ñi suñ ñàkkee dara dañoo xeex pour jotaat ci même su leen jaralee fitna waaye moom melu noonu moo teg kenn mosut a dégg si mu def fi fitna waaye liñ gis nag réew mi ni ci puus dañ koo wax li olof di wax puusante ci maraaj la yam ci réew mi lañ bokka ñu doon ñi nga xam ne juddu réew mi lañ ñu am fi tam ay yelleef ak ay aaxa su dee dañ bugg a forcer ay doole ak ay tapale ak ñun tam dinañ wane suñu yaram yi neen du nekk ci li nga xam ne fitna waaye lépp lu lu waa wax dinañ ci taxaw pour gaaral ko ñu gis ne kenn du ñu bombax rek ñun is the fact that health is a basic right for all human beings and that good health plays an important role in socio-economic growth and development. Thus, that are of concern to government and the people of the Gambia. Recently, some, of the, some people have been taking the law into their own hands to commit violence acts of destruction and attacks on property and individuals. Aside from the Banta disorder, violent incidents, including arson and murder, have been recorded between Kombo, Berending, and Gunjur. In Koina, Garawon, and most recently, in the Kanifing municipality. Personal attacks on government officials fighting crime in the country, such as the Assistant Police Commissioner and head of the anti-crime. An arson attack on his family home, the Bakote police station, and within the Serekunda market area are not part of our values. We are aware of the important role of the media in society, particularly the social media and its influence on our lives. Let us maximize the benefits that social media forums can avail us to educate and keep the people informed. As citizens, we must not create hatred among ourselves. Madam Speaker, honorable members, say never again comes with a big responsibility for both citizens and government. At present, it is the citizens saying never again to state violence and abuse who are engaged in various forms of violence against their fellow citizens, state institutions and officials. Therefore, let us guard the peace we have si euh, ah, euh, woon ah, jërëjëf dañu lu am solo ah, ci tàmbale bi rek kañ a def isi woon na wax bari wax ne ci at bi bu mu commencé fa la ko a def waaye boo xoolee li nga xam ne téere réew mi lim fesal joxewuñ fa waxtu wala jamono bu ko war a def waaye ci liñ bind ak liñ ci waxtaanee ci ubbite bi la war a doon. comme dama gëm ne li tax mu yéex koo def dafa am lu mu doon dajale mun a am lu bari pour mun a génn wane moom boppam lana lan la liggéey te boo dégloo li mu wax ci loolu la gën a gaare suñ ne xam nga pour nga wax ak askan bi li baax li nga def ak li nga waajal war nga ko mun a wax waaye amul réew bu amul tolof tolof am na jafe-jafe dafa waroon a tam laal ci bunta yooyu mu wax naka lañ ko saafaralee nga boole ñaari mbir waaye soo xoolee waxam benn boor la dem boppam rek la bu ko sampa yi baax yi fi am ak yi ñëw ci ay yokkute luñ bugg a def ak lu ñoo defar mel ni réew mi amul tolof tolof kon foofu dama gis ne mbir yi dafa defee bon kon li ma wax rek dañ war di wane njub ci askan bi di leen wax dëgg tolof tolof yi fi nekk ci réew mi fi bari na am na lim tudda am lum jaala waaye moo tax ma ne soo jiitee da nga war a jiite ñëpp te waruloo isi xaaj ak seen waaye lu bari lim wax lim dégg ak lim diggee ah, maa ngi ko waxtaane benn eh, réew mi mu tollu Gambia su dee li moo wax mooy am ci kon Gambie dina bokk ci réew yi nga xam ne réew Afrique yi ñu féete kanam wax naa sax ne léegi tey kon ñu raw Rwanda parce que li ñoo déggal li ñoo waajal ah bu amee day lu baax la parce que ñu ñëpp juddu réew mi la li yóbbu réew mi kanam lañ bugga ah, loolu moom ñu ngi seen ñaan di wax yàlla na yàlla def mu sotti ci li mu wax ne loolu la fi bugg a def yàlla jàppale koo mu am waaye li ma bugg a wax tam nit ki bul jiite rek foog ne lépp yow yaa ko war a def ne su ma waxtu jeexagul déedéet mbir mi réew mi ñëpp ko moom da jiite moomu surtout am na nangu toogu amul li ma ko ñax mooy na gëm ne lim lim yëpp lu baax la pour réew mi waaye su demee keneen dina ko jekkal ngir li yàgg fi Euh, ngir li yàgg na fi waaye buñ ko dégloo si biir waxam euh, daanaka firndeel na li nga xam ne ni moom mooy euh, démocratie bi nga xam ne ni wax na ko ndaxte si biir waxam wax ñu ngi fi amee political party yi nga xamante ni yu ees la tey it registré nañ la fii si biir Gambia bi waaye boo ko xoolee si ku fi nekkoon njiiti réew moom nag dangaa gis ne ñu bëri ñu ngi wax ne ni démocratie amu fi woon gannaaw bi nga xam ne nii toogoon na fi soo yow naka nga gisee na boobu noonu nga xam ne njiiti réew mi laal na ko jërëjëf loolu doon lu am solo dafa war a wax ne ñu ngee tabax démocratie pour man démocratie amagul ngir am na lu bari lu fee dox doo ko tuddee démocratie si tabax ko lañ teg pour lu ko soxal dafa jafe même fi jógee ñu gisul ñu ko te man su ma góom-góom laa te lii laa gis damay gestu di wax lu ñoo wax ci world politics dama ci yëngatu lu bari moo tax léegi-léegi nit ki ci waxam rek damaa xam nan la naan ak ci lu mu jublu ngir lu ma jàngala man ma ne démocratie réew mu nekk ak sa ñëpp mënuñoo bokk ngir réew moo dem dañ fa am ay nit ñi nga xam ne am na luñ gom christian bi jullit bi ak ku gom leneen loolu la gom ñu am fi aada ak cosaan mu yàgg fi lool doon lu baax mu teete ñu bañ egga fii démocratie lan la wax ci mbir yooyu mun loo ko jël taxañ ko moo tax ma ne démocratie comme yére la xottil li emoo ak yow nga ñaw ko sol ko mu em la nga mun a dox dem boo solee lu la ëppax di nga am xat-xat boo solee lu la emut di nga am jafe kon doo wax ne li ci réewu tubaab bi la ñoo tiba ñoo teg ko fii du dox li ma jublu ci loolu mooy lu mel ni góor ak góor di sëy jigéen ak jigéen di sëy ñun duñ ko nangu suñ aada xamu ko suñ diine xamu ko te ku ñu ko bugg a forcer dafay jur fitna xëy na bu dee am na ñeneen ñoom dañ ko yaroog seen cosaan la ñun daaxuñ ko waaye nit ko nekk ak li nga xam kon lii war nañ di ko bàyyi xel ñu gëstu ko bu baax moo tax ma ne demu démocratie réew mu nekk ak ni mu ko gisee boo ma waxee ne démocratie mooy kii bu defee dara nga jàppa ko keneen def benn mbir boobu nga bàyyi ko mu dem ma ne man ma ne loolu démocratie démocratie dafa war a ñëw pour yemale te ñun gis nañ ne ñoom ñu ngi ko doxal wax na ba wax mbiri Faraba Banta waaye tudd Harouna Diatta bokk na ci ku njëkk ñàkk bakkanam waaye ndax tudda na ko déedéet dig nañ ñu fi gestu gisuñ ci dara Sirifo Kujabi bi rey nañ ko fi ak ñeneen ak ñeneen mun nañ koo lim tey boo xoolee moo tax ma ne soo jiitee réew mi boo leen ñëpp côté bu mel ni fooñi ñoom tey nguur bi daf leen génnee ci Gambia li tax ma wax li ne mel waxuñ dara ci ñoom ñoom buñ ñëwee képp ku doon liggéey bokk ci xeet boobu wala jóge fa dañ leen jël dindi leen ñooñu resign ñoom ñoo leen laax nga xool commission ñu fi set ñu fi teg yépp amul benn kilifa bu jógee ci xeet boobu wala ci boor yooyu ñu jël leen fa boole leen fa pour nga wax gox boobu gis ne suñ ay nit ñu ngi fa ñoom tam bokk nañ ci lii amul ñaar nga jël ay soldats sénégalais dem tebleeg foofu waxuloo askan bi dégg li ma si transparency and accountability ñu góom ne on economic la ba tolof tolof bari fa economic spokesperson bi génn a wax ne ñooñu nekkuñ under economic mandate waaye nangu toola diggante nguuri Gambie ak Sénégal moo tax ñu nekk fa te liñ wax muy dëgg soo fa demee ay sénégalais kese nga faa pour lan ne leen toog leen fii ngeen xoolal ma waa Foni ngir ki jiite woon réew mi fii la jógee te mbiri rébellion bu nekk Casamance ki fi nekkoon yaa jame ñu ko jiiñ ne moom moo ci def loxoom yaa ngi wondewu Sénégal ne ñii ñoo bokk ak ñu benn xeet leen toog leen fii xool leen kon lii doonul lu rafet da war a jiite askan bi yëpp li ñoo teg waa foo ñi dindi leen lu rafet ñu gis ki di di vice chair passé de Adelaide Socé dem Angleterre di wax ne waa foo ñi ñoo bañ a nangu too pour naka ñoo nekkee benn kàddu yooyu ku jiite doo ko wax ñoom loo leen boole moo tax ma ne joxuñ leen place jël ay sorla teg leen fa ñu leen di xool bés bu nekk waxtu bu nekk lépp luñ def daal ñu leen di ŋàññal kon réew mi ni moo doxee loolu wax dëgg ne yàlla jaarut yoon xaateeg seen tabaxut réew te defarul kon waa foo ni ñoom ñoo leen tooñ su loolu ñoom ñoo risaañ baay ñu ne ok ñii ñoom ñoo génnaa ñoom ñoo leen daax te ba tey ñu ngi bañ ci jox leen place ñu ngi koo gis ñu bari ba ci ñi sol si sécurité bi ñu bari si ñoom ñu ngi leen daaxa ñi ñu tuumal leen di leen teg te dañ bëggoon a def coup d'état ci whatsapp loo ko sax daaj benn ngànnaay wande ɗum ɗon fe halare canga ko trisien wa jamano guuri ya jambe tati hen disembe attaque si mi fide ay fe ayo na nane ñooñu ay jambalay kon démocratie moyla doon na mbir boo xam ne war nañoo laajaat suñu boppa nga gis lu ñaaw nga dooleel ko nga gis ku defu dara nga jaay ko doole waaye ba tey nga ne yow si démocratie nga nekk kon man loolu daaxanaa ko man dama gëm ne ñëpp dañ moo tax damay faral di wax ne li fi bonoon démba munu fee baax tey soo fi ŋàññee li fi nekkoon ne baaxul kon fexeel yow tam bu ko bamtuwaat nga ise lu gëm loolu su boobaa di nga mun a joxe nit ki xas ko waaye ki nga joxe di ko xas ma ne ba tey gëmuloo ko benn baaraam boo ko jox ñeneen ki ñu delluwaat ci yow Euh, si sa biir wax euh, wax nga ñàkki bakkan ki nga xam ne ni moom mooy Harouna Diatta euh, waaye gannaaw bu nguur gi taxawee ba tey tamit gis ngeen bi ndaw bi nga xam ne ni mu ngi doon liggéey foofu sa Serekunda sa Black Market moom itamit ñàkkoon bakkanam ndaw yëpp taxaw si temm ne ñi nga xam ne ñoom ñooy taxadeer yi ñoom nag ñoo ko daal di rey ba nga gis ne ni ndaw yu bëri génnoon si neen foofu noonu sa Serekunda def ab dox ñaxtu dox ñaxtu bi nag mujjee si li nga xam ne ni histoire bu rëy la ba nga xam ne ni dem neen taali kër yi ki nga xam ne moom moo jiite euh, kuréel googu di anti crime unit euh, waaye ndaw yooyu nag ñu tegoon leen loxo tey euh, si biir waxam ki nga xam ne moom mooy jiite réew mi wax na ne gis neen fi ndaw ñi nga xam ne nii ñu ngi jël luwaa bi tee ko seen loxo est-ce que foog nga ne loolu ndaw yi leen jóg pour téye luwaa bi si seen loxo man d'accord ma ci lu wax li ma wax la rek wax bi moo tax ma ne dafa féetee boor nit ki am nga jafe-jafe lu ma a njëkka mooy ñaawlu li xew ak li waral lu ne mel su boobaa ndaw ñi liñ def kenn du ko saxal danga koo daaxaa li baax li baax a baax li bon a bon loolu kenn du ci ànd te képp ku yàq sarta ni namu ne dafa yaxa sarta waaye olof dafa ne li yëngu li ko yëngal ko ëppa doole kon yëngu am na waaye li ko yëngal waroon na cee wax mu gis ne ñooñu liñ def tegu ci yoon mu njëkk a dàq loolu ki nga xam ne sax moo ci ñàkk bakkenam mu doon ki nga xam ne am na ay njaboot mu masawu leen mu ñaanal leen sax mu boole ko ci ngir loolu doonu lu rafet waaye mbir yi doo ko wengal gaal bi suñ ko wengalee rek duñ dem pour nga mun a joow ñëpp àgga teg ko mu tege ci yoon ku nekk nga eb ko ci gis ne yow yaay capitaine bi waaye yow mi war a jiite soo wengalee kon fuñ jëm fuñ séentu ne dinañ fa àgga duñ fa mën a àgga kon ndaw ñi liñ def ñu ngi koy ñaawlu di ko rafetlu waaye li ko waral waroon na ko mun a wax ak yan jéego lañ cee teg pour saafaral ko parce que ndaw ñi ba tey ñu ne jeexut li ne mel su fi amatee ñoom tam li jogaat jógaan mbir nag pour saafaral ko li waral mbir mi foofu ngay joxoñ tibati nga fexe naka ngay réglé loolu ko ndaw ñi lañ defoon biñ ko defaat loo gis rek dafa am lu ko waral moo tax ñu leen jëlee teg leen man dama ko ñaawlu woon ne nit ki sa ndawi réewu sa énne du rek di leen teg benn waaye waroon ngaa benn fexe soo leen di teg benn place mu nekk ay dem di ñëw wala waaye du doon ay mile two te gis nga mbir yi ñu tegee ñoom li njëkk a wax ne dañ ci am ay firnde yu leer ci ay vidéo nangam ñu jóg ci tatti ci ñoom ñetta fukka ñu bàyyi leen ñeneen ñu ci des ñu béy leen léegi vidéo bi xanaa li mu wane ñoom ñi ko ci bokkoon affaire yi dafa am leneen li ci xew kon moo tax ma ne lu ñoo doxalee leer mbir yi dafa dese leer lu ñëpp bokka waaye am nga ñoo ci seeti ne ñii moom léegi bàyyi nga leen ñu dem waaye juróom-ñaar yi daal ñooñu doo leen bàyyi ñoom ñu doxi seen soxla di nga leen toppee ba fu mbaax na nekkee benn te ñoom ñëpp ñoo bokk a jëf benn jëf kon moo tax mbir lu nekk balan cee dugga war nga ko di ko xoolaat bu baax réew mi fu mu nekk daal gaal gi dafa wenga ah, lan nga foog ni ah, njiiti réew mi moom waroon na wax ah, tey it waxul ko waaw loolu moom bare na mooy li maa wax rek jafe-jafe ñu am tey mu ngee wax yokkute yu bugga si si wàllu njàng mi man ma ne loolu dina jafe ngir daf fi fekk li nga xam ne mooy ndaw ñi di jàngate duñ leen laaj koppar ñoom ñu ñëw dindi loolu tey soo demee Gambia College jafe-jafe mu ngi fa waroon naa mun a wax jafe-jafe bu fa nekk ak naka lañ ko saafaree waaye lu dul yaa ngi wax lan ngay ñëw def problème fekk fexewuloo ba saafaral ko loo fa bugg a tabax doo fa tabax fii dama fi bugg a sampa néeg te ndox kese moo fa nekk soo fa dindiwul ndox bi pour tabax fa dina jafe lii mooy lii dégga da nga ñëw fekk ay ndaw yu jàng duñ fay dara nga ekkati alal bu bari teg ko fa te ba tey ma dellu ci waat ci government sports person li Ibrahima Sankare ne am na ku kool ci rajo bi kenn si student yi Gambia collège di wax ne ah, dinañ jàpp bési loolu di pour dem taal collège bi mu ne ndaw ñi suñ demee ba taaj collège bi ëllëg Adama borom mun naa génnee li ñoo fay pour jànga kon su génnee li ñoo fay pour jànga ñoom ñu taal collège bi naka la ñoo jàngee ma ne borom xel doo waxee noonu da ngay dem wax buur ne ko génneel koppar bi ndaw ñu mën a dem jànga duñ fay dara su boobaa duñ ko taal kon moo tax ma ne mbir fu jafe-jafe am loolu ngay teggi yomba yomba mun a am waaye ñuy ñëw génne free education ma xam ne ñii pour ndaw ñi jàng ñorul leen moo tax loolu foog mu am jafe-jafe ci buggee def alal bu bari te li nga sampa baaxul lu mu yàgga yàgga dafa ko dafa ñëwaat wax na ci wàllu géej bi ne liñ cee nappa koom-koom bu bari la ñun luñ cee am dafa tuuti ñoom ñiñ ko jaay ñu bari ñu ne contrat man ma dañ ko jaay tey dinaa ko fesal fii ñoom ñi faa liggéey ñoo ko wax ne lu toll ci fukki gaal suñoo nappa juróom-ñette yépp réew tugal lañ jóge mooy ñaari gaal moo jóge ci réew te ñi nga xam ne ñooy liggéey ci kuréel boobu maanaam 20 percent rek ñoom ñooy Gambien 80 percent yépp ay foreigner la loolu jaay li nekk sa réew nga moom ko li ci ëppa ñi jóge réew tugal ñoo ko yor ñu ko doxal kon da nga jaay sa réew moo tax ma ne nañ wax askan bi dëgga nangu tooy yépp yóbbuwul ñu waaye luñ ko denca denca dafa feeñ wala diplomatique passeport bi kenn yaakaarutoon ne dina feeñ te feeñ te ba tey jeexagul am na lu bari lu ci biir ngir 2018 2019 rek moo 17 18 moo feeñ waaye 2019 gis nañ ci ñaari passeport ñi nga xam ne benn ñooñu duñ juddu réew mi te def nañ leen juddu réew mi waaye boo xoolee yépp ci July 2019 la kenn ki serial number bi wala passeport number bi commencé na ci junne ak ñeneen ci téeméer lu beneen bi commencé naa ci laaj 16000 ak lu toppa te yëpp ci weeri julaay li nga xam ne liñ rawantee buñ ko joxe dafa mel ni one week su dee one month la saa yu kenn mënut a joxe 14000 passports within one month kon nguur bi nañ ñu wax loolu naka la amee dañ nekk di toog nomba yi di defar passeport wala ndax loolu lépp lañ jaay parce que du joxe jaay la am na ñu wax ne léegi nañ revoke passeport yi ma ne xalaat bu rafet la ñu defar ko pour ñu mun koo sikkee pour joxe ko waaye dina jafe. ngir mayewuloo ko dam ko joxe nee na ñi dañ génne xaalis jënd ko gis nañ fi fi ñuy tukki isi fi ay pick-up isi fi ay rider kan moo leen jox xaalis ñu ne ay philanthropiste ay doonu mun naa am laawaat ci yii la dugga boo ko buggee nangu ci ñoom ñoom tam dinañ wax fan leen jaar ak yoon kon dina jafe torop kon dëkka bi ba tey am na lu bari lu fi leerul ci njublan ci li nga xam ne ñàkk a déggu ci nit ñi kon mbir yi foog ñu toppa ko te duñ ko moo tax bu lii tóobee rek ñu tóob gaawalantu isi lii euh, report of the Ghana Commission government white paper pour ñu fàtte waaye fàtte wuñ ñu ngi ko gestu ñoom ñoo wax ne ñu ngi ko lijjante ñu ngay gestu ñun tam ñu ngay déglu suñ fi ñëwul wax askan bi déggal ñu dinañ génne ñu leeral lu àngale di wax bi suñ buloo su boobaa askan bi dinañ xam lu xew Euh, bokkoon na si lu lu lëmbee réew mi euh, ñu bëree ngi wax ne euh, parti bi di APRC nguur gi di nguuri Adama Barrow bi dañ ko waroon a baan ndaxte boo ko xoolee ki nga xam ne moo fi nekkoon jiiti réew mi Yaya Jammeh bu fi taxawoon dafa baan li nga xam ne nii moom mooy PPP nga nekk si parti boobu di APRC yore seen i kàddu bi yow naka nga gisee li nga xam ne nii mu ngi lëmbee réew mi jamono juñ toll nii. naam jërëjëf mu doon lu am solo Yaya Jammeh bu moo ñëw dafa tombé woon jamono boo xam ne. jun military junta la woon jamono bu mu amee constitution amutoon kon lu bari di ko mun a def te doo sukkandiku ci téere te nguuri Adama Barrow dafa ñoo fekk fi 1997 constitution bi munut koo jàllaa di isi lu ko nee te nguur ci constitution boobu doo fa fekka li gaaral luy war a mun a ba waral ñu baan APRC naam ñun ragaluñ baan mun ñun lu ñu wax mooy Adama Barrow su ko neexee nañu baan éleg du fi yàgg ñun gëm nañ ne am nañ mbooloo kuñ dooleel Adama Barrow dina amul ci sax ñaari xel lii mu ci ñun moo tax ñun dañ toog ci lu wóor moom moo toog ci nen bu ñëw mun naa toj saa yu nekk waaye ñun ci xeer lañ toog suñ lañ toog dafa dëgër ragaluñ baan suñ ñu baanee mënuñ ñoo génne réew mi mun nañoo xool parti bu ñu nee suñ bokkee ak bu mbooloo moom mënut mut am mbooloo bu ëpp lii moom àddina yëpp gis na ko te leer na te li ma wax ci ay parti yu bari benn parti rek moo fi sosu muy Gambia Action Party di GAP ngir man bokk naa ci kuréel yi euh, interparty committee bu ñu wax IPC national man fa képp ku bindu IEC dañoo binda parti yëpp yëgal leen ne parti bu ees ñëw te dañ dee binda tam IPC wane ne am na parti bu ñëw ba ngir IPC parti yëpp a man koo am MOU wuñ d'accord ñu nangu toog ko kon liggéey ngi yëngatu lu bari ci wàllu politique ak lu jëmale réew mi kanam kon parti bu es amagul lu bari lu ñoo gis ci social media bi ay nit ñoo ci nekk naxaate la rek pour seet ñoo mun a issee ay njuuj njaaj ci sànni karta yu ñoo dégmal si waaye ma wax ko soo wolee logo yi ñoo design binda yi dafa mel ni lu xale bu ndaw defar ak technologie fu mu toll art studio yi fi nekk ngay sos parti logo sax da jël dara di ko teg ci ko beneen nataal kon lii am na lu ci leneen ragaluñ parti yu bindu nañ ñëw waaye lépp luñ fi tooga dinañ ko feeñal lii moom fu mu nekk réew mi naxaate daf fi jeex li am mooy ñu bokk a mun a defar réew mi ci dëgg ak li nga xam ne mooy jaar yoon ah ba tey rek euh, ñu bàyyi la nga tàggatoo su ko defee ñu mun a xuus si euh, xibaar yi. jërëjëf li ma tàggatoo rek di ñaax askan bi ne réew mi suñu réew la du ma denc bi ko wax ki fi jiite nañ ko jox ceeb buñ ko saaga buñ ko tuumal waaye bu mu teree wax dëgga ah ñu gis ne dañ éene réew mi jàmma su réew mi baaxee ñun ñëpp suñu njëriñ la su safaan amee mun nañ cee loru kon nit ki bañ ko bu tax ngay ngay réew mi utee jàmma ko safaan loolu warut nañ am yar ak teggin buñ buñ xaar démocratie ñun suñu ay kilifa ci lii lañ ñu yar dañu yar ci diine aada ak cosaan man dama gëm ni loolu moo gën a rafet démocratie kon ñun loolu lañ war a di ko puukaroo ngir dem démocratie muy abala ci biti te lim àndal lu bari dëppoo ak diine àndut ak yar ak teggin kon nañ ndamoo leen doon ñu comme suñu boppa doon ay nationaliste politique bu mu tax ñu noonu gannaaw ay jaam réew mi ñoo ko bokka nañ ànd liggéey su politique jotee ñu dem politique waaye du ma daale lu yéen tam ma sant leen gërëm leen ci waxtu bi ngeen ñoo jox te li ma wax la rek bàyyi leen kenn fépp foo leen mun a yeggaay lépp ci taskati xibaar yi nañ cee góorgóorlu kon di leen ñaanal yàlla jàppale leen seen liggéey gën a jëm kanam di wax ne wa dëggaane yàlla askan bi kontaan ci yéen di leen jaajëfal Eh, nekkoon eh, tey eh, fii si xibaar yi réew mi di ko jaajëfal moom mi amee kàddu parti boobu noonu di with these two stakeholders um, for the past almost 10 months now. Um, we feel that we're part of two families and, and today for us is like a matchmaking event. It's like uh, some kind of a wedding celebration. We're bringing everybody, these two big families, together under under one roof. Um, we already had the opportunity um, of bringing some of you uh, in a workshop where we revised the um, the curricula that was being used in the various uh, TVET institution. Um, it was very important to get the inputs from the industry and to make sure that you know we had case studies, we had practical experiences, we had this all injected into the ongoing um, curriculum that is being used now in the various training institutions that we are supporting through the EU funded program. This is also an occasion for me to thank you, Mr. Ridwan, to thank the EU for entrusting us with the management of this um, project. Uh, they have been extremely supportive in everything that we're doing. Um, I think it's it's been a very uh, fruitful 10 months. Um, we have been able to um, mobilize quite a good number of uh, training institutions, working very hard uh, to lay the groundwork for, um, let's say, customized uh, customized training programs, um, of which uh, solar uh, installation uh, maintenance is probably the most important one. Uh, we aim at uh, training more or less 300 trainees in West Coast, URR, and LRR. We've already started doing so. Many of the partners here today have already initiated these training programs. Um, this on the one hand. On the other, we also have a business development component. And there we also want to bring in solar technology. If you look at the various factors why young people are actually leaving the rural areas uh, towards the urban areas or even beyond um, Gambia, crossing the borders to reach, uh, in, in, the hope to reach uh, the European shores, um, I think the technological gap plays a, a, significant role. I think young people in the rural areas, they kind of feel isolated. They, they feel this gap very, very strongly. And uh, we think at, uh, in the Fee program that bringing in solar energy combined um, with other technologies can actually help bridge that gap, can actually offer concrete opportunities for these young people um, to actually make the best out of the conditions they find in their own setting. Um, and in our business development component, um, we're about to launch uh, a techie fee grant, uh, which will take place next week. And um, we will have a, a, component for solar grants, which will enable young entrepreneurs, we're talking about small or micro enterprises that have already been established, um, to make the best of solar technology and combine solar technology to other uh, equipment or um, facilities, for example, in terms of agro-processing or packaging um, or, or, cold storages and so on, to actually um, boost their production, um, also expand their businesses and hopefully employ more and more young people. So 3 million euros. Its objective is to contribute to socio-economic development and nurture positive prospects for local populations as well as for returning migrants in the Gambia. It is currently being implemented by four partners ITC YEP, Enable, IMVF, and the German Development Cooperation GIZ. Under the TechIFI program, GIZ has planned to bring together on a yearly basis, starting from today, solar energy experts and TVET institutions involved in this promising sector. Paul, I want to extend our sincere thanks to the European Union for supporting um, this um, initiative, which is very important. This Techifi initiative shows that we should believe in ourselves and believe that if we work hard in our country, we can make a difference without going across the uh, dangerous seas to, to Europe. And I think uh, it's a good opportunity to combat irregular migration. I also want to thank the EU, as he mentioned about the 142 million US dollar um, project. From here, I'm going to the steering committee of that meeting. I chair that too, so I'm quite aware of that. And um, that is to support um, a solar um, plant in the Gambia for power generation, uh, 20 megawatt, but also to connect about 1,000. jiital euh, si président bi lu mu war a def euh, nit ñi nga xam ne nii euh, ñu ngi doon lëkkaloog ki nga xam ne nii moo fi nekkoon njiiti réew di Yaya Jammeh suñ njiiti réew mi di Adama Barrow moom nag démb teewoon na foofu noonu sa néegi député yi sa pencum réew mi pour rek wax li nga xam ne nii moom mooy réew mi GIZ tekki fi programme ñoom nag ñoo ñëwaat lëkkaloog institution si bugg a rek dooleel ndaw yi bañ mun a am si luñ mun a jàppande fii si biir biir réew mi mbokk yi li moo fesoon si réew mi di leen jaajëfal ba beneen at seer na tey it weer bu dee nit taxaw tàllal la loxo ah dama ne askan bi jox leen la seen noppa ndaxte Kairó Sow Properties ñoom ñoo ñëw nag génne fi loolu bam set wécc ne léegi luwaas kenn du ko yi ndaxte ñu ngi leen amal bërëbu dëkkeekaay yu yàñña dëkkeekaay yi nga xamante ne nii ñu ngi ko jaayee foofu sa lameen kerawaan bërëbu dëkkeekaay yi nag li nga xam ne moom mooy ndox ak courant mu fa lépp loo soxla sa wàllu dëkkeekaay Keresu Investment Limited mu ngi la ko fa amal Keresu Investment Limited nag seen bu dëkkeekaay yi ñu ngi koo jaaye si cash price muy jar si ñaar téeméeri junney dalasi ñaar téeméer ak juróom fukki junney dalasi ñaar téeméer ak juróom fukki junne dalasi mortgage mortgage nag foo ko dégg mooy euh, fay nanka-nanka ba fay bi jeex nga fay ko si diiri juróom benn weer ah dama ne Kenasou Properties njaaxare jeex na coono jeex na te dal nelaw si sa kër boo nelawee sa gannaaw ba nag bandang Kenasou Properties daw leen dem seeti seen kër yi foofu noonu Salam and Kerewan